بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه بعض الأسئلة نطرحها على شيخنا الفاضل فلاح إسماعيل حفظه الله تعالى وذلك في عيادتنا له يوم السبت العاشر من شهر جماد الأخير 1432 هجري السؤال العاشر نحن جماعة من الإخوة السيغ- السنغاليين مقيمين في إنجلترا نأمل في فتح مدرسة سلفية في السنغال للأطفال عمرهم من أربع سنوات و... عفوا بين أربع سنوات واثني عشر سنة يدرس في هذه المدرسة مدرسون سلفيون مادة العربية والتربية الإسلامية وكذلك بعض العلوم الدنيوية مثل الرياضيات والفرنسية والعلوم وهلم جراء فهل من نصيحة من شيخنا حول هذا المشروع وجزاكم الله خيرا خيرا وشفاكم الله وعافاكم
الله التعاون على البر والتقوى مطلوب وأن تتعاونوا مع إخوانكم وأهل بلدكم في إنشاء مدرسة سلفية جيد لكن قولوا أنا نعرف آه، الشيخ محمد أحمد لوح وهو سنغالي كان زميلا لنا في الجامعة الإسلامية وتخرج في مرحلة الدكتوراه وهو الدكتور الدكتور محمد أحمد لوح أعرفه حين نقول نعرفه حق المعرفة من خيرة المشايخ السلفيين وهو شيخ بحق شيخ وسلفي صاحب غيرة صاحب علم نعم فقول تعاونوا معه وأعرف أنه له نشاط وله دعوة ف- والتعاون معه أمر طيب ومحمود وعنده مدارس يشرف عليها نعم تعاونوا معه لا تفرقوا لا أنتم اثنين تروحون صفون صفين مثل ما قلنا ما ينفع هنا قول والله ننصحكم في مشايخ سلفيين تخرجوا من الجامعة الإسلامية وهم في السنغال ونشاطهم من ذلك اليوم مع أنهم عدة جهات حاولوا أن يتعاقدوا معه الشيخ الدكتور محمد أحمد لوح ورفض قال لا البلد بلده بحاجة وهو من ذلك اليوم في بلده وفي الدعوة والحمد لله بيننا تواصل وبيننا زي- يزورنا كثير إلى الآن يا شيخ؟
إلى الآن إلى الآن نعم من خيرة المشايخ فقل تعاونوا معه واتصلوا به أي خير لكم من أن تفرقوا العمل السلفي في السنغال نعم
حفظكم الله يا شيخنا أحسن الله عليكم أن السنغال تعاني من التيجانية ومن الصوفية معاناة عظيمة جدا وهو له معاني.
مؤلف له مؤلف معروف لا في صوفيا أر- رسالة ماجستير أو شيء هكذا لا التقديس تقديس ها؟
في تقديس الأشخاص نعم هو رسالته في تقديس الأشخاص وهذا لا شك متعلم.
التيجانية وغير التيجانية كلها نعم
آه، السؤال هذا الح- هذا فصل عندي أنا في رسالتي في الدكتوراه هو أخذها وعملها رسالة كبرها الله أكبر.
لا من خيرة المشايخ ومن طلاب العلم المعروفين والمشهود له نعم
أحسن الله والله عليكم.
نتمنى أنهم يتعاونون معه يا شيخ نعم شلون نخبرهم إن شاء الله إن شاء الله
Vamos a Álvaro. وتفتاه حول عرق فأنكي من تهدي واسم كلام بيت شعر بن من بشعر الهداك كلام يزل دون دعاء وحين يطلع دعاء لك سماع والآري وهو بها مساكين مسكين أجيب سبب شعر هاتي وحدنا تحت ذاك الله ناس محمد بذاب أبو أفتاسا سامح مسيحنا نحن آمين سامح محمد عوره لك أفقد واتركه زي إشارة أبو بحبح المستخدمين ودود نقدوغل واخر يجو دخلنا ما بين ني وقتي سن دون ko muy muy docteur Ahmad Lo xam ne ñooñu di ñaan ndigal ci def ma des retour fii Sénégal yooyu ne nekkoon na ngeen ci docteur Ahmad Lo waaw seex boobu ne ma naan leen sax tax tax di tax asxaas boobu sax ci kon ci saa doctorat suñu yóbbu la xanaa koo jël gën gën koo gën gën koo yaatal gën gën koo sax maanaam ma tatbiq daal ci Sénégal ci la suñu bi naan ci tiyaan yeeg yooyu moo mooy mooy sopp rek mooy mur gi lépp rek moom ñu jàpp ne moom ay yëfar lañu gis gis gis ngeen kon ñooñu di noonu ñuy jàppale man ana ñoo xëy na ñun ñu naan ay suufenke lañ di doon gëm nangam ak dañoo doon few ak dañoo doon nangam ñu doon ay milliardaire ñu yor ay ñu nekk ay millionnaire ñu yor ay dërëm dërëm waaw am na luñ def noonu dara gaa yi gaa yaa ngi ñu xeex fu ne mu ñu yàcc rek noonu lekk ko naan rek waaw mu jeex kenn ku nekk di maanaam di di critiquer sa nangam man waaye wane ma dafa nii sangam foofu Europe yoo wax naan critiquer tàngam fii caricat ñu caricature yi information salaam tax fii Modou Modou Diouf ñu naan na am mu ne ko suñ bii noonu noonu bu bu ñëpp dee di critiquer ku yëpp man daal loolu yàlla kon daal man daal li ma kii moom ci mooy jéem a dem def loolu loo man gaa daara yi fayu peuple yi nga xam ne fuqaraa yi nga xam ne ñoom mënuñoo fay seen si surtout yaa ngi taxaw ci mbedd bi man mu daara joo xam ne tene daara yi joo xam ne ngir yàlla kenn kenn du fay dara kenn du yóbbaale kenn kenn du dara loolu loolu lañ ñu fas yéene wax ma ñu ne ko juróomi ñett yi nag moom ci lañu tàmbalee ba xam ba xam yëf yi nañ ko atténué déet loolu suñ loolu suñ yaakaar naa mooy wax ji waaye gis ngeen gars yi rek ñoom ña ña ña ngay jàpp loolu de su ñu waajal ñu wax ñaanu leen maanaam na ngeen na ngeen jàppalante lu tur loo moom moo koy liggéey liggéey bu am solo waaw léegi gi nag bu bu leen bu leen def seen seen bi ah arañ moom dara dara di xoolee rek waaw ku ne di di wan gëm gëm suñ tubaab gëm alaji maa ngi ko gëm su bañ sëkk ñaan bàyyi ñu sëkk ñaan njaasana keneen laayee ni kenn defut sero kenn defut sero ñu ngi ko daal gars yi daa xam ne man nag ñu ngi yàcc rek te yàlla mun wax ne wala tax ñu bu leen doyee di wala tax sunu bu leen yàqu antu moom enloo na yéen ñi kawe ga noonu yéen waaye nag in kuntum mu'minin bu ngeen gëmee li ngeen di wax kon ñu kooku man de maa ngi fas yéene gëm ñu wax man maa ngi ciy jëm salaamaaleykum wa rahmatulah والأراضي والهواء بها مشارك بيروت مشيكه بنا أجب وسلي برسلي من حراس نبي محمد وتفهم سد لساني نوي جناني سف أماني وسد بقائي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيجي نيجي نيب maana di siyaare nag bu baax baax rawatina ci ci ñu wàggal sëñ baara ci xarifaal ñi nga xam ne moo ñoom lañ tuddee bis bi yaakaar naa su ma ma jumut di siyaare ñëpp siyaare waa penc mi waaw kon daal xamaa di jéglu bu baax a baax ci waxtaan yi jëmbul na ma ko bëggee woon dëgg man naa bañ a nekk te noona waaye xam naa ci njëlbeen bëggoon naa bala maa sant sëñ bi ma wax loo loo xamante ne waxoon naa lu ni mel ca kër sëñ Basiiru ca ba may wax ci franc-maçonnerie daanaa ci waxtaan loolu sax moom keroog laa laa leen wax ne ci laay noppee wax ci franc-maçonnerie ndax yóbbu woon na ma ci diggante ñaari noon soppe yi maanaam sëriñ si noonoo ma ca maanaam ñi ñi nga xam ne ñoom la ñuy jiiñ franc-maçonnerie di mere ma ca ma xam ne kon nag loolu kon jëru ko ginnaaw ñi ngay ñi nga bëgg a leeral franc-maçonnerie seen i liggéey ñoom dañ laa jàppee am noonu ak franc-maçon yi kon ñoom kon ma ma génn ca waaye keroog waxoon naa baat boo xamante ne danaa ko ko waxaat mooy ne kat man de génn naa ci waxtaanee ne franc-maçonnerie waaye képp koo xam ne nag da ngaa dëkk sëñ sëñ Tuubaa moom maa ngi ci sa kanam loolu loolu moom loolu moom xeex la boo xamante ne du ma ci jóge salafi yi giit ba ñu ma leen ndax sëñ Tuubaa waxoon ne fala tuaadu man raytum faahu yuxriju laa ilaha illa llah man ba ñu ma ci kenn képp xam ne ab jullit nga noo ko noo ko doone ba ñu ma la waaye nag salafi yi gi nga xam ne damaa yëg xam ndax usul diin laa ci la génne jàng naa ko kon donte ne dama doon taxawal waaye xam naa cee dara xam naa leen ñoom ñoom yaakaar naa jombul yaakaar naa gënuñu maa xam ñoom seen passeport bi yaakaar naa moom xam naa ko xamin woo xamante ne ñoom yaakaar naa gënuñu ñu ma koo xam waaye yéen nag ku ma gis ne da ngaa dëkk sëñ Bamba moom boo dee jullit nga it man ci sa kanam lay taxaw loolu loolu moom ci moom kon téléphone yi kon nee nañ xam ne man ba ñu ma leen ngir seen dara su su bañ dee am kay ki may bañ mooy ku bañ si sëñ Bamba moom loo man di am bañ naa ko loolu loolu kon man foofu fulaa ne bëggoon nit mu leer nga nga xamante ne kon téléphone yi kon ba ñu ma leen waaye sëñ Bamba ji damaa gën a lépp ne kon waaw kon yaakaar naa laaj bi moom téléphone ya du maanaam wax ji du waxee dara baat bi concept concept dafa am man man mii maa ngi tudd Moustapha kenn tànnu ma kenn tànnu ma ma tudd Moustapha sa sa sama turandoo xanaa kon tànn nañ ko waaye man kenn tànnu ma aw tur képp la salafiyé moom aw baat rek la boo xamante ne dañu la mi mi mi ngi mel ne nga ne parti réew mi boo ca bindiwut teewut maanaam ci ci ci réew mi mi nga bokk loolu moom du waxi dara nga xam ne baat rek la ki ki ki xamul ne moom da yaakaar ne ñii li ñu nekk ku ca nekkul nekkoo ca la mag ñu nekkoon déedéet albuuti yu albuuti yu Abu Shahid albuuti yi syrien boobu bind ci téere bu am solo asalafi fiitu nee na marxalatun mubaaraka la masab islami yi loolu la moom loolu leer na maanaam marxala boobu tey mag ña nekkul njëriñ ànd ak Sëriñ Tuubaa ku jóg daal ne man de li may wootee moom mooy la mag ña doon dund naam mën naa nekk waaye nag bu du tax ne la keneen di dund nekkul la mag ña ña dund loolu ab terme rek la kon nekk naa kon laaj bi kon bu dee kon kii la kon mën naa am kon kii na foofu.
léegi ñuy laajaat nag ne ginnaaw bi ñu xamee ne kon tur la daal man manes naa wax ne tur la woo xam ne kon amul maanaa daal waaw léegi li ñu bëgg a laaj nag foofu mooy ñi nga xamante ne nii nag jàng nañ ko ba gëm ko jàpp ne képp koo xamante ne nekkoo ci mashab boobu noonu nekkoo ci mashab bu wér noonu nan lañ gën a mën a leeralee nit ñi ne loolu ñu wax ne baat bi amul cëslaay nan lañ ko gën a mën a leeralee nit ñi ndax tamit bind nañ ko ci ay téere danañ ci def ay waxtaan ba nga xamante ni am na ñu bëree bëri bëri ñu nga xam ne lu wax jooju noonu dugg na ci seen bopp léegi nag nan lañ mën a leeral nit ñi que ne ci ay ci saraa bu gën a leer que ne baat boobu ni baat bi rafete la ne ca biir rafetewut noonu.
kon li ngay laaj kon mooy salafiya islamiste yi ñoom seen pas-pas lan la lu am solo la. gone yi ci war nañ ko xam mag ñi sax dañ ko war a xam islamiste yi seen bopp waxtaanee naa ko ca fële ca kër sëñ Fallou Jumaada am na islamiste boo xam ne keroog daa ñaxtoo xëpp ndax la may wax moom xamu ci dara dara li ci xamut maanaam moom moom maa ko gën a maîtriser moom la la ci lam gëm danaa indi ñoom lañ gëm lu mu doon ba xam nit dana ko gëmam déet maanaam ñoom yàlla ji ji gëm yàlla islamiste yi bokkut ak su su yàlla noonu wax la joo xam ne ba ma ko waxtaanee nee naa borom xam-xam bi laay waxal yàlla ji islamiste bi gëm bokkut ak yàlla jiñ gëm yàlla ji islamiste bi gëm soo demee ca isbaatul xaddi lillahi bi annahu jaalisun wa qaaidun téere la boo xam ne mi ngi ci google ku dem soo ko tappee gis ko téere boobee maanaam onoon bi képp baxut titre bi képp baxut nee na téere buy saxal ne yàlla day réegu ca ca kaw séet ba da cay toog qaaxit ci ci arab mooy réegu diju ba ba ba laal la ngay diju bu dëgër yàlla noona lay def téere boobee islamiste yi mooy seen omda ci ci ca lañ gëm soo demee ca rijaalul xuri ci xuseyri imaamul junne di siri seqati karaxe yi ñëpp rek albustaami yi ñëpp lañu ñu gëm mooy ne yàlla amul limite ibnu taymiya rahimullah moom gëm ne yàlla da dafa am limite maanaam gëm ne yàlla limite limite la am limite nag maanaam islamiste yi bu ñu xamoon baat bi lu muy firi danañ xam ne limite moom lu lu lu lu ko am lu nekk soxlawoo nga nga leneen ndax li lay limité lu nekk li li nga xam ne moo lay limité loolay ci yow kon soo ko amutoon kon doo mën a am limite loola ko ci kon moom waaye nag ñoom ñu ne ca téere boobu nga nga xamante ne. la la muy saxal mooy isbaatu xaddi lillah yàlla am na limite ñoom ñu wax ne yàlla day jëmm la ibnu taymi rahimullah ci ay téeréem donte ne man sikk laa sakka ji ba xam ndax téere yi ñu moo ko bind lépp bind bind na ko njët ndax boo demee ca madaari ju saalikiin ibnu taymi ab sufiyanke dëgg la wala yu dëgg la kaamil la ndax soo demee ca fatawaaw ya da nga dégg muy wax naan bu ñu gisoon benn sëriñ boo xam ne daa nekk ci marché bi ànd ak dongaam dugal loxoom ci poosub jàmbur kenn du ko atte waaye du nangu dongaam yore ko ci léegi te loolu yaakaar naa kenn mënu koo gis ci fiq te Ibnu Taymiya rahimahullah wax na ko moom Ibnu Taymiya ak salaf yoon yi ñu ne yàlla ji nga xam ne ñoom moom lañ gëm yàlla joojee jëmm la am jëmm yàlla joojee am na kër ci àjjana am na kër ci ci ci ci àjjana siisam boobee bu ci toogee dana des ni ñetti baaram maanaam maa léegi siis bu du ko fees yonent bi alayhi salaatu wasalaam su bis bañ cee bu dikkee day nuyoo fëgg ñu ubbil ko kër ga mu ñëw fekk fekk suñu borom toog ci ab siis cës boobee bu ci toogee dana des ñetti baaraam gént bi fay toog nee ñu nee ñu kat maanaam su ci maanaam su su borom bu toogee ca ca xarsh tànk bi ma ma ma koy teg ci ci ci ci kursi yu ñu ne bu bu jaaxalee ne ci sées bi maanaam day tegale ay tànk moo tax moo tax ñun su fi ne araamal nañ kuy tegale ay tànk ndax suñu borom noonu lay tegale ay tànk. maanaam ñoom ñu wax ne li may wax de téere bi de isbaatul xaddi lillah islam si ñoo ko bind ma nga ca google ba ñu ne suñu borom bu toogee ca kaw sées ba day xiit xiiji ya ittu taxtahu atiita day xiit xiiji lu ko waral sunu borom dafa diis kan ñu ne ibnul mubaarak nee na sunu borom daa diis ba bu toogee ci siis ba day xiit xii ji day mel ne nee na maanaam tegu fas gu bees boo ci walla gileem boo ci toogee noonu xiixi ga noonu noonu lay xiixi jëmuñu ci ñoom ñu ne yàlla bu toogee ci siis ba day diis gan ba sax malaaka yi sax dañuy day metti ci ñoom kenn li doon ñu ne saa bu bu adduna bi mooyee yàlla ba yàlla mer yàlla day mer ba ba funki ba dis ci kaw siis bi ba malaaka yi maanaam sonn waaw ma ne kon ki yenu siis bi ak ki ñu yenu kan moo ci ci ci ci gaa dis yàlla kon bu dee yàlla dafa am kër dafa am ab siis muy toog dafa am kursi bu muy teg tànkam waaw jëkk muy bind yooyee kon fan la toogoon fan la tegoon tànkam fan la fan la dëkkoon ah ñoom ñu ne ñoom ñu ne ñoom ñu ñu indi layal ñu ñu ñu laaj leen ni leen waaw yéen yàlla ba mu bindagul dara fu mu ne woon ñu ne kaana fi ama in bayda wala fi sahabatin bayda may leen waaw kon sahaba bayda boobee niiru weex woowee yàlla newoon ci ca biiram njëkk muy bind dara kon niiru kon ak ak yàlla kon ñoom ñoo ñoo fi mas di nekk soo ne ne waaw may la kon yàlla kon ak loola kon musuñu fa jug kon kon kaana xadimay ni isbaatul xadimay ni la kon la te loolu moom kenn du ba ba koy nangu maanaam sunu borom li hadis ba wax ñëpp d'accord ko kaana allahu wala shay ama kon kon ñooñu nga xam ne dañoo gëm ne ne yàlla mi ngi woon ci ab saxaaba wala mi sunu borom mi ngi ci bu toog séex ba séex ba day xëy xëy ji yaakaar naa ab kajoor kajoor moom mënut a mënut a gëm yàlla jooju. kon yàlla ji islamiste yi gëm loolu téere la ñoom maa seen téere la isbaatul xaddi lillah lil imaam addasti soo demee téere ba ci moom waaye di nga xam ne moo ko taqiix teew njëlbeen nga wax na ne al albani seen waajur nga xam ne moom lañ fonkloo ci ci hadis bind na ca maanaam maktabatu zahiriya ca Arabie Saoudite wax na téere bii de moom lenn hadis yi ci ci rot amul lenn lu koy dëgëral ci kitab ak sunna albani dàqan téere bi yëpp maanaam yéenuwul maanaa yàlla do doon jëmm ci muñ ci de ñoom nee ñu kat yàlla maanaa léegi su waa adduna bi maanaam bis bi sun bis bi bu jeexee yàlla balaa dossier ak si ci moom guddi lay doon waaye ñoom xam nañ ko Amérique day daa mel ne ñoom bu nekk suba noonu ci ci guddi lañu ne sept heures de temps dox na fi xanaa wala ñoom ñoom nee ñu bu ñu mooyee yàlla ci bëccëg gi balaa dossier ak ci yàlla guddi lay doon sëñ bi kon yàlla kon kon kon am na kon waxtu wu ci wum dul xam dara maanaam islamiste yi ñoom seen yàlla noonu la mel yàlla joo xam ne balaa xam du si la la la la ko malaaka yi indil yàlla la ci yàlla la joo xam ne day mer ba ba ba ba funki su meree ba funki malaaka yi yenu aras day des day des ci ñoom buñ sax baalee ba yàlla bigaat maanaam funki ba deñ ma ma maanaam mu mu mu weex ku ne ku ne xam ne moom loolu jàkkaar naa ci xel mu gàtt rek joo ju yàlla moom du waxi dara. am na ci ci am na lu ci ci gën na kii maa ne ibnu xabbaan saxi borom saxi ba dem na fu ñuy wax sañistaan ca Asie suxraan ca Asie ñu ñu laaj ko ne ko yàlla ndax am na xadd mu ne déet amu ko yàlla amul xadd ngaa yi dañ ko génne ibnu taymi rahimullah nee na ibnu xabbaan day maanaa jàmbaar la waaye nag weddi ga mu weddi woon xadd moo tax gaa yi taxaw ci ci moom waaye nag yow seelul seelul ne kon yow maanaam islamiste yi bu bu buñ dee kontar ab sufiyanke di kontar ab chiyan yi lu ko waral chiyan yi bi sufiyanke bi ñoom dañoo dañoo naf yu alhamdulillah yàlla amut limite kon kon noonu yàlla ji ngëm bokkut ak yàlla ji islamiste yi yëgam loolu loolu moom ku ci kon ci tënk kon moom leer na ne ne kon ñoom ñoo ñu di indil li ñu indil sëñ Bamba ak kuréel sëñ Bamba kenn gëm ko julee ji ba tey jii benn suufan gëmu ko ab cheikh yi gëmu ko maanaam xalaat la boo xamee ne Abdullahi nu nu nu nu Mubarak ak kaxa boobu boobu no no no xabaar bàyyi xel ne kaxa boobu no xabaar nag maanaam ab siif la woon kaxa boobu no xabaar ab siif la la la woon ab jullit la nag ahadis yi maanaam marwiyaat li ñu li ñu soloo ci moom yonent bi waxu ko moom day wax man am na ñu wax ne mën naa am li muy wax da koo jëlee ci ci ci tawrat waaye moom alxuraan amu ci sunu yiir amu ci.
jërëjëf jërëjëf sëñ sëñ Moustapha waaye bala maa jàll ci sëñ Maxtaar rek léegi danaa la laajaat benn laaj muy kon pas-pas boobu nga xam ne kon léegi ci nii nga ko leerale wér na ne kon luñ jéggaani la mooy ndax bi may wax léegi liñ jublu ci xolul mustawarada yi waxuñu rek lu amul fii waaye lépp loo xam ne kon dëppoowut ak lislaam kon ndax taxarif bii nga joxe ci ñi nga xam leen ne mooy xaqida salaf yi ñoom loolu lañ gëm loolu dàqoon na lool ak ni alquran ak sunna jàngalee ilahiyaat ni ni ñu war a jàppee suñu borom. léegi nag lan lan yan asaar maa hiya al asaar al mutarattiba ala misli hada al i'tiqad bu yàlla defee tey am ñu jug bay ñëw di jàngal di fi jàngale si lu mel noonu yan mooy nag jeexital yi nga xamante ne ni mën na koo jeexital. ci biir société bu mu dugg loolu pas-pas bu mel noonu.
laaj la bu am solo Tombouctou démb rek islam si ña ngay màbb bàmmeel ya bàmmeel li li li li waliyu ya lu am solo la loo xam ne jege na loolu de lu mën a agsi fii la Tuubaa gii loolu lu mën a agsi la ñoom dañoo gis ne ñoom ñu ngi ñuy tudd noonu noonu noonu xubur yuun jaamukati xirim maa jaamukati bàmmeel yëmuñu yëmuñu yëmuñu ci te loolu de. ñoom nee ñu képp koo xam ne da ngaa gëm ne yàlla amut amut limite kooka sañ nees na laa rey sa deret daga na de islamiste bi bu jël ab bomb dugg ci dugg ci jumaa ji maanaam naa léegi faraxe ko kooka fi ñu toll moom daa gëm ne shahid la daa daa gëm ne jumaa ji xërëm la Abu Bakr aji jasaayir yi sëñ Moussa Wadia jatara nett la ma ne fekke na ko Madina nettu mën a war xanaa sekki na caf dor sulawaat oto bu matalim nee na Abu Bakr jasaayir yi di leeral leeral ba ne na nekkat arab bi suli de xërëm yi benn xërëm moo fi des mooy mooy barab bi barab bi barab barabu cente bi moom pour moom xërëm la nee na nee na su daan ne yeeg ak maanaam jamono yi yuuxu maanaam police yi kii ko ñoom kon ñoom maanaam li nga xam ne moo mën a taratub moo mën a moo mën a moo mën a gongi koo ci pas-pas bii mooy sunu sunu sunu sunu sunu Tuubaa gii islamiste boobee saa bu dikkee ci fii li mu xam nga doon nañ ko wax ne kat am na ñoo xam ne ni bind nañ ay tract wax ne kat léegi julli ci jumaa ji xaraam na. loolu wér na moom ci wér na am na amut wér na maanaam pas-pasu islamiste yi ñoom dañoo dañoo gëm ne julli ca jumaa ju joo xamante ne maanaam ab ba mel moo xam Madina la moo xam feneen xaraam na. ko ko bañ gëmee bañ gëmee nag loola képp koo xamante ne da da ngay maanaam léegi da ngay tabax ab bàmmeel maanaam wëliyu nga ci nga ci nga ko jàppee ci wàll leen ñoom dañ laa jàppee ne ab yëfër nga. kon nag yëfal nga ne kon dagan nañ sa sa sa deret dagan na kon moom maanaam suñ gone yi nga xam ne ci Touba bari na de Touba bari na fi lool ay islamiste bari na fi ci ci foofu bala ma laa jox kàddu gi maanaam suñ kilifa yii war na ci war nañoo bàyyi xel lool danse bi ndax kat ah xam naa moom jëmbul man yëg gi ma ko yëg bu bokkut ak ci ci ci ñoom duñ ko yëg waaye ci waaye ñoom. fañ jëm dëgg dëgg dëgg mooy sunu sëñ bamb ji la moom la ñu ji.
ah jërëjëf sëñ Moustapha xam naa danañ ñëwaat ndax xulool yooyu ñu àggale ci yu jógee ci sàrq ak sëriñ Makhtar Faye dégg nga sëñ sëñ Moustapha li mu wax ci xuloolul mustawrada yi ñu tàmbalee ci xulool alxaqadiya yi nga xamante ne ni maanaam pas-pas yi nga xamante ne ni bokkut ak ñun pas-pas yi nga xamante ne ni moom lañ ñu jàngal fii te ñi ñu ko ñi ñu ko jàngal tibbee ko ci alxuraan ak sunna kon wuute na ak ñun liñ xamoon ci lislaam wuute na tamit ak suñu waaxeex bi ñu nekk li ma la ci laaj kon sëñ bi yow mooy léegi xaqida boobu noonu jàngale gi ñu ko fiy jàngale ak tasaare gi ñu ko ci tasaare yow nan nan nga ko gisee ak daaxawa boobu noonu nan nga ko jàngate li ma laaj suñ Moustapha léegi tamit ci sa gis-gis maanaam jeexit yi nga xamante ni mën na koo indi ci mujtama bi ndax man dama damaa jàpp ne te boo xoolee ci àdduna bi réew yu mag yépp dañ koy def donte la jiitaluñ diine sax waaye seen gisinu àdduna dañuy bañ beneen gis-gis di dugg ca réew ma di fa tasaaroo ndax la mu fa mën a jur ci nit ñi bu seen gis-gis yi wuutee bu yàggee seenub ànd day jafe naa la jox jox misaal masalan tey jii Union soviétique amatut waaye liñ daan wax xal la guerre froide a xar bu baari da taxoon na américains yi daawuñ may mennum réew moo xam ne teg nañ fa loxo ay communistes yi ñëw tasaaroo fa ndax buñ fa buñ fa tasaaroo seen pas-pas bi ñuy indi wuute na lool ak pas-pasu libéralisme bi nga xam ne wala capitalisme bi nga xam ne moom la américains yi doon def. fii tamit kon dafa mel ne bokk na ci li am solo ci aw xeet ndegam ñun ñoom dañoo jàng di teg ci diine rek ñun it ñu ngi ta jàng di teg ci diine mu tam li ñu li ñu jàpp ñun wóor nañu jeexital yu yu yu yu doy waar yi nga xamante ni. bokk la muy gën a jur la ca jiitu mooy ñàkk sécurité bi nar a am ci biir jullit yi ndax ku xool Sénégal ay at ci ginnaaw rek lépp ñoo ko bokkoon bu dee ci xaqiida ñoo bokk benn pas-pas bi bu dee ci mashabul maliki yi ñoo bokkoon benn pas-pas bi bu dee ci sulóob tamit muy tasawuf ñoo ñun ñëpp ñoo ay mu tasawufam la donte la ay turux mu mu mu muxtalifa la